premier juin euh, bi ñuy def réunion dafa am loo xam ne lu suñu xel ñëw euh, alors quand le juge a donné le le le, le verdict du du procès euh, on s'est demandé euh, apparemment il y a pas de vidéo à li nga waxoon nga ne euh, yow yor nga preuve yi yor nga ay vidéo bu président Macky Sall di la jox autorisation euh, vous allez tout balancer et puis le juge il a tout à disposition xanaa yow mujjuloo euh, mettre ses preuves ses vidéos à la disposition euh, de l'avocat de des avocats de Adji Sarr en fait je vais vous dire euh, une chose hein. Euh, dans cette affaire fekkuma fi sax gaa mais li muy mën a wax mooy que en tant que praticien du droit membre de la famille judiciaire euh, je ne saurais commenter une décision de justice mais de ce que j'ai entendu li ma dégg ci journaux bon euh, dégg naa ni le jour du procès les avocats euh, de la mise en cause euh, Adji Sarr ni bu nekk dans les dispositions pour wane des des vidéos des images mais le juge a cru devoir que moom jarul ko daal loolu xaw na ma jaaxal parce que quand même je suis mais jotul ngay jàng droit ba am doctorat pour xam ni que en matière civile comme pénal surtout pénal mais tous les modes de preuve sont admis. mais donc yow yow nga doon wax yor nga ay vidéo j'ai vu des images. yenn images nga gis. mais des, des des images qui confirment carrément que y a bien eu une action de viol j'ai vu ces images gis naa ko man j'ai mais xam nga bu dee image am na par euh, par pudeur juge bi mën na tere sa diffusion euh, pour le grand public mais le juge peut se faire une religion mën na consulter euh, image yi euh, avec un, un un un comité restreint et si le juge avait réellement vu ces images là et si le juge avait consulté les images. peut-être que le verdict aurait, aurait été tout autre. Parce que mmh. en matière de viol, le doute profite à l'accusé. Et les accusations de viol et de menaces de mort ont euh. été, euh, les accusations de viol ont été disqualifiées euh, et il y a eu un acquittement pour les menaces de, de, de mort. Bon. Est-ce que, est-ce, est-ce que yow gis nga bi am nga vidéo réellement que est-ce que leen ko. ah c'est pas parce que tribunal chaque fois a nangul nit dara que loolu amul. dama lay wax bu lu ndaw a ndaw loolu la ñuy jàng en droit la justice humaine n'égalera jamais la justice divine maanaam atte yàlla rek mooy atte bi nga xam ni jum du ci am mais juge bi ci boppam intime conviction lay am mun na am est-ce que dans la phase d'instruction le juge d'instruction mais juge d'instruction da nga fàcc fàttali moom lan la. mais on a dit le toutes les preuves ont été versées euh, dans le dossier dans la phase de de de. Ouais, de l'instruction waaw mais pourquoi juge d'instruction bi. moom moo njëkk a chance ça c'est le premier affaire bi mais nan la commission ga euh, fële quand même à. Euh, waaw mais man sa vidéo yi de renvoi. non bon moi j'ai vu des images yoo xam ne ça réconforte mon intime conviction est-ce que montage la ndax baax na am mais li ma gis man. ah li ma gis li ma gis non non non li ma gis bi ngay wax da nga wax avec tellement de. non de certitude mais attention mais non les images sont sont mais attendez mais moo xam ne dafa bu mais kaa man sax gën a gàtt. Mm. j'ai même pas besoin d'image pour me faire une idée. ci ñu ñaar kan moo ci dëgg man Adji Sarr laa a vous êtes un parlementaire. cest à vous dites des choses nit ñi dañ lay bàyyi nopp et puis on on on. non en fait yow je sais yow la mooy tàpp. pour d'accord je suis parlementaire mais yow tu es journaliste. waaw mais yow ta préoccupation mooy lan. mais mais vous mooy ma jël les ma ma jël. j'ai vu cette image comme Mimo le gars journaliste a dit qu'il a vu cette image moi j'ai vu une des scènes waxuma une image des scènes mais en réalité. mais attendez en réalité peut-être que image yi ngeen gis yegsiwul ci ci loxo juge bi ak ci loxo. avocat bi en mais mais mais attendez j'ai l'impression que euh, am na benn norme boo xam mooy li ma la wax quoi. le juge d'instruction sur quelle base il s'est pour faire une ordonnance de renvoi avec les qualifications et de viol et de menace. dama lay laaj. dafa instruire sur la base de li nekk à sa disposition. Ah, mais la décision non, mais finale attendez attendez attendez. la décision <laughs> finale. le, le, le, revient non, c'est ça que je vais vous expliquer le juge d'instruction bu njëkk ça là parce qu'il avait instruit kii njëkk a gaañu Massamba il a il il a eu le temps d'écouter de se faire une religion le juge qui est venu Maham Diallo dafa ñëw rek pratiquement il a continué à poser ses questions. dama ne sur quelle base un juge je parle pas du procureur qui fait ses réquisitoires mais le juge d'instruction mais ma chère mais c'est un juge comme le juge de siège sa première la a fait décision dans laquelle il a confirmé yaa le délit le, le crime de viol de menace en phase d'instruction. mais instruction kay amuloo looy amuloo looy mais xam mais est-ce que yow yow béy yéen il va falloir au moins ñu mën leen on n'a pas besoin d'être imprégné nous on s'imprègne tous les jours de la matière. mais juge d'instruction yow juge lan la nga yaakaar. mais juge d'instruction dafa instruire. après joxe ordonnance ma. ordonnance de renvoi la mooy la mooy de renvoi. xaaral rek mu des des des des, des articles du, du du code pénal la décision finale revient à l'autre mais xam nga man man man waxuma ay waxu juge d'instruction dugguma ci procès dama ah, ne non non il dugg ci da nga ne da nga ne da nga am ay vidéo non non non dama ne actuellement et moi je tiens non, de, non, de de sources très très très et très fiables y a jamais eu de vidéo la seule vidéo bi am. waaw la vidéo de ces filles qu'on a vu waaw dama ni dama ni <laughs> mais xoolal. et il paraît que la fille là c'est même pas Adji Sarr. dama ni dama ni. boobu sax boo ko man boobu ngay wax. mais y' a pas de vidéo. waaw dama ni kooku xoolal on va pas réveiller les morts yaa may dégg on va pas troubler le sommeil des anges par rapport à ça. mais y' a pas de vidéo dégg donc vous n'avez jamais eu de vidéo. waaw ah, non ne mais kon da ngay fen bon moo gën a direct non. non non non ma ne kon. non non non est-ce que vous avez eu. des vidéos ou pas non dama yow ba jàpp ma ne yàpp ma taxaw ma mu jëm ne man j'ai vu des images qui me confirment dans mon intime conviction que y' a bien eu viol avec violence. et menace peut-être que ce sont des images montées. en fait kooku en fait. man sama wàllu bopp non mais ma doy la ci leen j'ai même pas besoin de vidéo pour me faire. ma religion par rapport à la personne qui est accusée tu me diras que subjectif ça n'engage que ah, moi xam nga droit lu ñu jàng la théorie des présomptions deux faits établis que nit ñi lay doxalee on a déduit la probabilité de l'autre fait ce qu'on appelle les présomptions simples les présomptions irréfragables entre waxu Adji Sarr ak waxu Ousmane Sonko. yow boo ma joxoon Kamil même su ma dem safara. Mhm. mun naa la waatal Adji Sarr lay doon loolu moom kenn mënu ci dara. loolu moom. c'est libre arbitre juge bi àtte aussi il ah. juge sur son intime conviction. mais y' a pas de vidéo y' pas de vidéo bu ñu. mettre à la disposition du juge non ne ma maître waa da ngay fenn vidéo amul man loolu laa gënoon bëgg ah, ma ne ne la gis naa li nga ne gisuma ko. man je peux attester de source sûre. que juge bi ah, teguñu loxoom ay vidéo mais yow yow tu serais une bonne partie le jour du procès. man ak yow. oui mais léegi le juge naa ko convoqué nous les deux. Ah? <laughs> mais monsieur le juge s'il vous plaît s'il y a recours wool la dame ak man. <laughs> comme ça ce sera sa la mienne. ñu ñëw voilà non mais mais mais je euh, en tout cas juge bi ah, teguñu ci loxoom. vidéo bi ñu doon wax. vidéo boobu amul. non am naa gars yi dañu doon kii dama ni non dama ni yow léegi. waaw ah. tu vas nous dire sur quoi le juge Maham Diallo. c'est fondé. mais foo ne ma xam ne dafay jël ay texte de loi comme ça rek trois ans comme ça. man nekkuma ci stade Maham Diallo non stade final laa nekk amul amul vidéo. mais stade final bi nga xam boo amulee la phase initiale stade final du am ah tu penses que dañoo jël dossier rek jëlee ko parquet rek yóbbu ko directement là-bas mais Maham Diallo wax ni y a un non-lieu le procureur y a un classement sans suite mais c'est pas parce que nit yóbbu ñu nit tribunal rek wala police. ne ko def ba def viol mu am mais y a eu des cas mais y a des éléments de réflexion le juge day taxaw woo les témoins xool les mais c'est pas de les juges là